tax na mbiram mat nañu jàngataat ko yeneen jàngat yu gën a xóot mooy Wally Seck ñu ko yar Wally Seck mi ñan ñoo ko yar question boobu lay tàmbalee aaxiru semaine ngeen defal ma ci gëstu am na lu ma ci xam nag dafa am ku may waxal barki démb ñu toog ci plateau bi nii euh, tàmbalee guñ émission ñuy waxtaan mu ne ma waa bàyyi leen suñ doom ji nag <laughs> foofu laay ubbee wax ci bàyyi leen suñ doom ji mu ne ko seen doom ji gannaaw yaru leen ko ci biir kër gi ba bàyyi ko mbedd mi ba mbedd mi def ko nii mu mel da ngeen muñ waa mbedd mi wax ci moom ndax ku kër gi yarut mbedd mee lay yar te waali dañ ko yarut ci kër ba mu génn ci mbedd mi maa ngi wax wax yu doy war de xam naa li may wax de waali sekk wala woli sekk nii mu mel nii nañu gëstu ji ñu ko yar lu xewoon ba baayam génnee ko kër ga diggante boobu mu ko génnee ci an yan loxo la nekkoon loolu révélation la ci yan loxo la nekkoon question la bu may posé après nag yéen dem leen ngeen gëstu ji mhm. gannaaw dafa affiché wu rek am fit ñoo la gën a dëgër fit te xam nañ la nag te bis bu ma waxee <laughs> waxaguma ci waxaguma ci bis bu ma waxee dama ne leen dem geen ngeen gëstu ji ñeer Waly Seck am na ñuy nettali histoire baayam ju ko génne woon ak nangam lu xew bi mu ko génnee yan loxo la nekkoon am na luñ ci xam dèjà li wu rek mooy am na góor jigéen bu siiw bu ñu xam ci àdduna bi nekk na ci concert am wax nañ ñu Waly sekk kii suñu doom la ñoo ko yar vidéo yaa ngi fi dam leen ngeen gëstu ji ko góor jigéen boobu kan la ak ban concert la woon ak wax jooju lu taxoon mu wax ko après nag da ngeen am départu gëstu ci ngeen di xamee ne waali du lu fontoo danañ ko wax baaxu maamam mu arrêté li muy def kuy mbokkam nag bañ ñu wax ko baaxu maamam ne ko mu génn ci réseau bii mu nekk di promouvoir ak ngóor jigéen ci senegal di leen jàppale xëy na lay ne cëpp ponkal mu ne lëng di góor yor saagu jigéen di koyang koyang gi ñu naan ah saagu waali bi saagu waali bi saagu waali bi am ñeneen gone yu ñàkk jom gannaaw waali sol nay peew bañ tàmbali ko roy ci peew léegi nag waali yor na saak ñoo dañ ko yor saak ba mu tàmbali dañ koy roy ci yorub saak ba mu tàmbali woon a jur benn scandale ñu tàmbali cee duma aw nit ñu yor saak biñ demee ma nga xam ne nii reeteet nañ ko ci loolu cooli bari ci la taxaw la ca Grand Théâtre xotti saak ba te li taxoon mu xotti saak ba du dara lu dul benn journal ci journal yi Occident yi jàppale góor jigéen yi ñoom ñoo jug caricature Serigne tubaa jaaree ko ci Wally Seck caricaturé Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu te lan moo tax ñu caricaturé bëggoon a défendre Wally Seck du ma dellusiwaat nañ ko waxee woon ndax wax ju ñaaw la ñu adressé ko Serigne Touba jamono yooyu noonu la ñu baree bari ñi ngi jugoon ñi soppee Serigne Touba di manifesté wu ci journal bi ni mu def Serigne Touba te xamuñ ne Wally Seck moo doon cause bi ñenn ñi xam nañ ko mais bëggoon nañu défendre Wally Seck moo tax kenn tudd ko woon te journal bi caricaturé Serigne Touba toll la la jëfu Wally Seck maara day taali moom moo taxoon muy caricature waale Serigne Touba bi mu demee ba coow li bari marche am ci gars yi génn manifesté wu journal bi lim bind xam na ne mbir yi bu tourné ñëpp xam ne moom mooy cause bi dana am problème bu mu ko jural mu retiré wu gaaw ca concert am taxaw ne bu fekkee saag bi dong nga tax mi ngi nii saag bi xotti naa ko man taalibe nangam nangam ak nangam xotti saag après ñu ne waaw gannaaw xotti na saag ba kon coow li war naa jeex xam nga sénégalais yi noonu la ñuy fonctionner mbon gu nekk mën nga xëy def ko soo ko defee pare ne maa ngi jéggalu victimisé wu rek am bëri supporter non gannaaw jéggalu na nag kon bàyyi leen ko mais loolu dañ ko war a am na kon bu jéggalu tam dañ ko war a duma waaw am na kon def na erreur mais am na kon moo ko tey Wally Seck li muy def nii moo ko tey amul lu muy pardonné wala gis ngeen bi mu bi mu jugee koo ci peew sol ay yére yu yaraax yu yu jigéene yor fi saak kay ñu coow ko coow coow mu dem ba coow loolu jeex mu xëy nag ne leen li ma doon nëbbu nag tey ma feeñal ko